Kiné nga mel ni dafa am loo ma dencal toute la nuit tu n'as pas parlé avec moi ce matin c'est la même chose. daal sa xel kër bi nga doon wax juste ci laa nekkoon j'avais un rendez-vous hier nuit a niveau restaurant bi ne fii Café du Rail fa laa nekkoon ak Faramendi ñuy wax ci affaire cité bi parce que je dois avoir une maison là man ak Fara on est loin sur la chose te chéri naa la benn affaire kër gu yemb kër gu mucc ayib non Fara Mendy et frère construction non kër yi ñuy def c'est exceptionnel yow foofu boo fa xasee ba dàggu oh dootoo wax dara. et tu pleures chéri chéri parle lu ma la war a wax la war a wax. bu mën nga jàppee sa dof mën nga jàppee sa benn golo daal ci kiir kër gi d'accord naa ma nekk une femme soumise loo bëgg suba ba ngoon jot ma dox ci te fois nga indi say sot d'humeur ci biir kër gi ma muñ ko des fois nga yuuxu ma say fois sax nga saaga ma ci biir néeg bi ma muñ ko ndax sama yaay loolu la ma sant nekk ci biir kër gi nag dëkk ak ay crocodile ak ay caïman ci biir kër gi ñu may def nga naan ma luñ la def muñal ma muñ waaw mën naa fekk sa raq sax ci biir kër gi di ko baalu di ko raamal ndax bëgg sëy rek te yàlla tax mais li ma mënul supporter bu mooy xam nga lan jëkkër ju ma jàppee dof mënuma ko supporter yow yaa ngi déggante ko mu nga di ma déggante woo ko umu depuis bi mu amee problème yooyu avec sa détresse ci lan déggante depuis lors déggante wu ma umu. waxoo dëgg yow waxoo dëgg bu. kii ne la tu dépasses les bornes. tu dépasses les bu fekkee dafa am loo ma war a wax wax ma ko ce que tu es en train de dire là je n'en sais absolument rien du tout. yow yaa ma am loo ma war a wax te wax. la war a wax ma ko. bu ma yuuxu amoo droit di ma yuux bu ma yuuxu. dinaa la yuuxu kay parce que là tu es en train traiter d'un homme ba pare ngay jooy sama kanam nangu moo xew qu'est-ce toog ci àll bi nit jóge fële ci àll bi woo ma teg ma ci diggu gor yi yaakaar lu ne la may wax mu naan ma ummu dafa ëmb te sa jëkkër a ko ëmbal yow loolu war ngaa toog ba nit di ma ko wax ci mbedd mi man ma soog koo yëg yow buub bu ma la laajee nga ni ma maa ngi ummu kon du dëkk man nga jàppee sa golo ci biir kër gi dina leer. xëccoo ba mokk rumbako rumbako rumbako kër gi daal nga mel ne fejar ay fejar soble. kër gi chaque jour mu rëbb a jooti. yii bii rëbb a jooti dafa ëpp. léegi lan la lu ma yëgul. day man man lii sax dama ci am un complexe pour wax ko. ah loo complexé pour wax ko kon de rëy na. waaye man xam ne ummi dina ñëwaat ci biir kër gi. ummi man mooy ñëwaat ci biir kër gi. menn. ay way ndaw Samba lii bettu ma. ndax man xamoon naa ne ummi dina ñëwaat ndax tànn biir gi ummi lam fa nekkee am fit ummi ku ko may fit ba mu ñëw si tànn biir bii xamoon naa ne dina ko may fit mu duggaat ci kër gi buu non man musumaa gis buu buu musumaa gis ku mel ni moom man xamoon naan ba léegi daa am coppati ummi waaye ummi mi lan la def buu ba buu fu mu war wëree fa di kar ummeeg lu ne xam nga loolu waxoon nañ ma ko kii nee na ma tase naa ummi ah, moo buu ñu sës sa miir bi man ko sës sa miir wis waaye léegi kon moom lan la si sidoon fase ak lan la si doon indee problème hmm. sën nag dafa foo sën lépp moom la déedéet bàjjan dama lay wax sën lépp moom la sën bu umi amaatee fitna day dugg ci kër gi moo ko ngemb ba pare ñëw nag di jaay affaire innocente affaire ki moom la waaye buut man de taxaw naa temb man fii ci kaw table bi laay taxaw umi du dugg ci kër gi bañu ma ci dara dara dara dara man maa ko ci waxuma laak taabaj waaye da nga yee ci koo seng gi ndax umu dina duggaat ci biir kër gi ndax umu dafa ëmb ëmb ëmb na bajë umu la def ah sent la def umu lu mu doon taxawaal ba ëmb ah di dajeeg buu ci ci ci ci boîte yi di ci kër góor ñi ah. di dajeeg buu fu ne mu dajee faak buu tóor du ëmb ah man xamoon naa ne umbi dina ëmb xamoon naa ni ummi dina ëmb. ëmb na de ndax ummi ba ah, ba ba ko bu génnee ah, kiiwee ah, ba mu këppee bu affair bi bu dafa taxaw na ummi duñ ko tëj ne taxaw na fa ne ummi bërëngu na fu ne ummi duñ ko tëj. police ñu ne police mënatu ci daal. du ci daal gendarmerie mënatu ci daal. mu ci daal cour de la haie mënatu ci daal. laa ilaaha illallah ay man lu may wax waa koñ bi di. looy wax koñ bi xanaa waa koñ bi seetaan ëmb na. waaye seen nu mu organisé nii ummi bi maa xamoon ummi fa ummeewul ci kër gi. non non man lii def naa euh, enquête bi ëmbewul ci kër gi moog boo ñu ngi doon gisante feneen ay auberge ak yooyu. ah dem nañu de mën na de. mën na de gune gi sa gune ka si kër gi lan lay def. kër gi kat baat gi waaw. ah man lu ma ci xam xanaa ànd man mii ëmb maa léegi man ñoom sama kaawu ëmb bii ñu bëgg a indi ku ne di sullee ko fële naan day ëmb. bëgg a ah, mu doon 3 cas mu doon trois quarts enceinte ci biir waaye maa ngi ñoom sa nuroowuñu ku ñu ëmb moom ay doom yi jigéen la man góor laa am mais dama ne Fatou Kiné yërëm naa ko Fatou Kiné yërëm naa ko ah lii kañ tojotoo na man moom xam naa ne mm. sëy ummee ak Fatou Kiné xam ah, waaye xale bin ah man de fi mu toll nii koo xool bu waaye ëmb sa yem ak kii tasul woon tasar. waaye bu tasee tasar dina delluwaat dina delluwaat def nii ndax bu amee doom moom dañ ko koy delloo. te day duggaat ci kër gi man heureusement man bi may génn man man bi may génn ñoom ci dañuy dugg ndax man damay dem. waaw léegi man lan problème bi nan laa ko mën a lijjantee man xaw ma ki dara de ndey man seen problème kër sama yoon newuti ah! hmm? maa ngi lay gërëm di la sant ndax information bii nga ma jox fi mu toll nii faaw ma toog ci ay fan di si liggéey xool ni ma koy organiser. lii information la ci liggéey. mais lii kaa la. eh eh xamoon lu ma lay xamal bu mu jëm kaw bu mu jëm kaw war na wàcc bu mu jëm kaw de. ay man ote su ëmb bii fi am lan laa ko. ote su ëmb li ñuy ote eh, lu ci li ñuy ote su yow ne Ndiaye. Ah, man ëmb ba ëmb ëmb Fatou Kiné ëmb. oui ëmb nga kër ndeyam amagul doom Fatou Kiné xanaa yéen yéen ote ci biir kër gi. eh eh man. man samay wax da du neex ndax bi ma la ko wax en douce laa la ko waxee bëgguma nag wax ci jëm kaw bu ma joll mber bu ma tëbal ci miir bu ma bu ma def leneen nday dayam fii. fii kañ lay yam man moom wax dëgg yàlla dinaa ko wax waaye doo ci feeñ. non dama lay promettre rek duma la wax loo xam ne du am. dina dinaa ko waxe waaye yow doo ci feeñ. non non doo ci feeñ. yow ay fen dalaa dalaa jig li ñaan defoon ngeen ko daaw fekkee déwén yi ay fen dalaa jig da ndey bu yërëm naa ko bu yërëm naa ko nag ah, bu moom lan la naan nii ba mën a daje lii yëpp dajoo nii bu li xew ci kër gi ëmp la ndax mbir mi yëpp li muy coow li bari bari yaa waral coow li ah, dafa am nag loo xam ni il faut mag ñi taxaw ci parce que yàlla nag moo bind sëy waaye moo bind tàggoo te tàggoo it neexu ko gënulu ko moom sunu borom mi ko bind euh, lii ñuy wax muy am bu fekkee ni dëgg la ni umb dafa ëmb bu fekkee ni day doom ju góor la xamal ni fase ga wéruloon sa jabar la ba léegi waaw yaa xam nag da ngay jëlaat continuer wala da ngay loolu sa décision bopp lay doon waaw beneen bi mooy ah nit ñi de ñu ngi koy wax xaw xawma nag dëgg la wala du dëgg bu fekkee ne yow ba nga ko bàyyee ba mu dem seen kër yéen a ngi doon gisee ba lii am ci yaa ñu mën a leeral bu fekkee gisee wu leen yaa ñu mën a leeral waaw da sama wax loolu loolu sax bu mooy wax ci ndax il faut tamit nga leeral ñu ma pare ma yaakaar ni xanaa yeboo ñu yeb gu tol ni walla nga manqué manqué gu tol ni wàcc ba pare di gisewaat ak moom ba li ci am de toute façon jabar ju ndaw nga yor xam naa ni yëf yi metti na ko trop boo yeboo nag bu jógee nga seet nooy waxtaanee moom yow daal léttuñu maa nga firiñ kii naa normal ngeen laaj ma mais damay dalal seen xel aussi yéen ma jur yéen a ma yar te am na yenn ñàkk fayda yoo xamante ni wax jàpp naa ne doxuma ci sama jabar fii leen toog ni ma nan ko bàyyi ma ni déedéet duma ko bàyyi maa dem ba sama xel wan ma li ma war a def ma wàcc ko ci wàccin bu rafet jàpp naa ne boobu léegi dara ñaawul suñu diggante kon su ma wàccee umu di toppaat ci ginnaawam man personnellement kon wéruma umu keroog bi ma ko wàccee bu weesoo euh, psychologue bi ko doon jéem a topp may wax ak moom di nattaan ak moom pour mu wax ak moom man ak umu gisantewuñu bay tegante loxo ba lii di ci xew suñu diggante bu dee li mu wax am na bu dee li mu wax am na ci sëy laa may wax foofu nag papa li ma leen di wax nag soriw dinaa topp diine ak lislaam li mu ma teg ma tegoo ko dinaa rafetal it dinaa ko yor ba keroog yàlla may ko om ñu set keroog muy mucc sama doom it li ma war a def ci moom boobaay dinaa ko def samay responsabilité la sama jabar la woon mën naa ko war a topp te dinaa ko topp mm-hmm. benn bi may wax rek mooy. umu nekkatuma ci disposition pour jël ko comme soxna doom bu góoroo doom bu jigéenoo ci am man ak umu dootuñu sëy sëy bi jeex na te nag yi nga xamante ni moom ma war ci moom dinaa ko def ba mu jeex su ma fa waree dem dinaa fa dem di jënti li ma di jënti su ma fa warul dem dina ma fa mënul dem dinaa yóbbante mais man ak umu moom quant lii jeex ñu àndak c'est fini. non na toppaat ci taxul nga manqué. taxul nga ñàkk fayda comme ni ko say waxe xool du bëgg di bañ moom nga njëkk a gis ci soxna l'essentiel est que am na foo xam ne yow fa nga yem bi def jotee yaa def waaye lijjanti bi ñu ñooy lijjanti yow moom yaa defoon moo tax ñu tudd la ci wax la waaye lijjanti bi ñeneen a koy lijjanti waaw mi ngi mel ni ku def jéyee bañ ni ko niib tey dañ koy lijjanti waaye dootul lijjanti bopp yow fi mu ne noonu noonu nga mel yaa ngi dégg mbir mi nag neel tekk dinañ fa def waxtaan li ñu war a waaye man de li ma lay conseil en tant que sa baay waaw boo bësaatee sa xolit bu doom ji juddoo bu fekkee nii mën nga koo jëlaat jëlaat ko bu dee doom ji góor it ndax man amaguma turandoo waaw voilà. de toute waaw damaa leen woolu woon ndax euh, tey moom waxtaan bu sérieux laa leen woowee li tax nag ma coppati leen yéen ñaan ñi taamu leen ci yow caam kër gi doo fi kubéeru baraada baraada nga fi kubéer nga fi butéel nga fi du dëgg kilifa nga ci kër gi naaw baax yow yaa toog ci kër gi asu mii moo toog ci sën kon kilifa la ci kër gi yéen nag laa fi wóolu moo tax ma woo yéen laa fi yaakaar ndax problème bi kat du problème bu ndaw problème bu na nag am na musaa mës naa am ci kër gi waaye bii moom mooy tëddalis bii moom wax dëgg fa yàlla xalaatuma ko man résoudre man donc fa ma am ci ñoo xam dañ may accompagner pour ñu euh, defar ko du dëgg wut solution kaa bi critique na de caam buu ëmbal na ummi lan Hmm? nii ni mu la def de nii la ma def bañ ma ko joxee. Hmm? ëmbal na ko kon xam nga ne lii du kaa bu ndaw. umu dafa ëmb. dafa ëmb ba ci ay noppam. umu biir na ba ci ay noppam. Hmm. ah romb na waar asu nii mu la def nii noonu la ma def metti na kaa bi critique na man xalaatuma kenn ku dul sama nene tuuti bii ci kër gi nga xam ne barki démboo Njaay la fi sëy si te moom it dafa ëmb léegi choc boobu xale bi nan la koy eh, sëy fi barki dee moo njaay bëgg a ama ama lii moom baa dina ko jikk baa di ko traumatisé ba mu jëlee ci avortement nañ waxante dëgg metti na triste na man nag lii xaw ma nan koy de nan lañ koy organiser man buwul xaw ma ban genre man daa xam naa ne ëmb moom ëmbeewul fii ummi li ma ci leer ba leer ëmbeewul fii problème bi nag moom dama leen koy delloowaat ñu àndandoo ci ñëw nañu laaxaan si te eh, ki ñëw wax na lu leer nañ kon ça dir dire que ummi bu ko yàlla mayee ummi sedd guy est-ce que sax nañ xaar ummi sedd guy day dellu si waat ci kër gi te loolu dina ñaaw dinañ am defe kon bi yëpp xam nañ ummi lu ko fi génne woon. dañu ah! mais yow qui t'a donné l'information. mu jën ma am si yu leer naññ naññ naan mi ngi nii sama loxo bii. mais bu ma ñàkk fayda. mais su de. mais bu moo ñàkk fula. jom la ñàkk caam. mais mais yow bu wax caam bu dafa ñàkk jom booy boobu mais bu lu tax du roy ci ay baayam bu. ah doy na waar de. que nag papaam nii la mel. Ah, c'est vrai ah, ah. royul ci man de. papaam non papaam nii la mel. papaam mais papa ji sax moo ko tane parce que papa ji ak luñ ko mënti waxal lii musu koo def. Hmm, ñaaw na de. mais bu day dem ba di ëmbal nag léegi. ah fase sa jabar mu def la fi lu ne. nga topp di yappar yappar ci ginnaaw topp ci ginnaaw bay dem di ko ëmbali tabi ah, miir. ah non ça c'est ça c'est ça c'est de l'excès li nag moom fii la fii mooy fin bi nag léegi. bi la jóg fin de la. voilà ñaaw na torop ñaaw na torop. ñaaw na torop gis nga yàlla ni mu leen weeree. naka te ñoom ñi ngi ñi ngi eh, eh, riitambale ci biir te kenn yëgut gis nga yàlla ni mu leen weeree. moo tax lu nit di def nag na doon jàmm. ëmb bee leen siiwal kon ça veut dire que ni ñu ngi doon gisante. ñu ngi doon gisante. asu na problème bi nag cas bi critique na damaa bëgg ñu àndandoo ci xeex ci ba ummi mii du duggaat ci biir kër gi na man xale bi yërëm naa ko kat. ah c'est ah? pas facile ça. yow Thiam du da ngaa mën rek yow yaa bëgg dugal sa bopp man de bu ma leeroon ne tey jii discussion bi fii lay mujj man du ma du toog. sa grain de sel yow tamit. grain de li ma ci wax sax dama koo réccu. umu mii ma laaj sax ne dafa ëmb man dama koo réccu ŋaanga ma warul woon ŋaang wax moom ma warul woon yow nag bu fekkee nga am fit ba mu jaral la nga wax lii lépp man xamatuma ci dara su ma sañoon nag nga ba pare xam naa li may wax de fii li fi ne dama koo xam mais asu waxuñ fi lu grand je pense bien ah affaire bu fi wax yow Astou munoo bàyyi di daw say responsabilité yow Astou yow kañ nga tàppet. Euh, aya ah, Ndeye Ndiaye tàppetuma de damaa xam sama bopp léegi. ah léegi ngay doo nga xam sa bopp. waaw musuma tàppet yow nag xam nga lu ma bëgg nga génn ci lii du sa yëf dégg Astou ko mi moom lan la léegi. yow eh ma kii ko Astou bu ko demba. ko faale. parce que man laa ce problème là ma dépasse. ah ñëpp la xam nga nga tracé ma affaire bi mais affaire nu mu demee noonu. dama mu un jour comme ça mu ëmb comme ça. caam defuñu ko ci mbedd mi. eh defuñu ko ci mbedd mi. dafoo dafoo dina la kat. ñii dañ doon gisante. mais fan lañ doon gisante. ay auberge fu na lañ daan gisante oh, dégg naa eh, hôtel résidence Lat Dior bi lañ daan yoxante naa. hôtel résidence Lat Dior ban benn bi. Lat Dior bi ba ñoom Sidi Diouf fa lañ daan gisante chaque jour fa lañ daan ne guddeeg bëccëg. mais comment se passe que man man man man je fréquente l'hôtel mais man musu musu ma fa daje ak ñoom ah. vais chaque fois chaque week-end man fa laay passer sama week-end ah. tu ah mais bien sûr mais pour mais xam nga lu son problème comment se fait-il que Bou puisse aller dans cette résidence là te man ma koy fréquenter à chaque fois duñu fa daje. Thiam yow yaakaar naa ak sa gel seen tuksi yaa na fay ànd. mais Ndeye Ndiaye. ah c'est toi qui a. non Ndeye Ndiaye attends quand même. xanaa da nga fay ànd ak sa coppate yi. booy booy xoolal dama ne li nga toog lekkoo naanoo yow loo am fayee ko hôtel. xoolal booy eh, eh, eh, xoolal tey jaa du ma sa morom la. booy li ngay fayee hôtel non xoolal du ma sa morom la. ah moom am kat yaa fi wax lool yaa fi wax lool dama fréquente mais je fréquente sa toog da nga ma am affaire cuk. léegi loo yi def ah, hôtel. kii la parle de cuk ki la wax ma dama am gel loolu ma wax ah, ah dama bëgg siiwal léegi waaw. ah yaa gis sama gel yow yaa ko gis yow sama yoon nekk ah? sa gel yaa ah? looy def hôtel lu def hôtel yow ah? man daw ma fa ba ëmbal ki fi ëmbal yaa ngi wax bu ma fi ëmbal kenn ëmbalu fi ah ne me parle pas d'hôtel dangaa muus dangaa muus ah tu dis tu dis que damaa muus man dangaa muus yow moi je suis pas comme vous moo tax nag alors yow sa ëmb daa fee un gosse de rien du tout jëm dem si di fa dugg di def ay weekend nagam yow di baax yaa koy dem ak sa yow ñu fay ànd ak mineur yi nag. Eh, xoolal on parle de bu on parle. ma yuuxu laa la man doo wax ma yuuxu ma yuuxu laa la. ma yuuxu laa la moom moo ma caa. maanaam moom ngay wax lan yaa yabaate moom sa jëkkër ngay wax lan. alors tu nga ñëw dama taaj fii dama fenal dama fenal di wax lan di fenal bu di fenal waa kër gi dama yuuxu. mer koy wax mer yow. billaay dootoo wax mer yow ma ngay wax mer. Ndeye Ndiaye ma ngay wax mer répète ça ay ay tapet billaay soo ma waxatee mer di nga xam ah mer ah dama ça. ngay seetaan loo xam ne gisa awam yi boo ko dimbaliwul yaayam dina ko sànk ndax dëpp li ko daloon ba tey dama yaakaaroon ni que ni changement am na mais ba tey dara changé wul démb fii laa ko fekk mu toog di jooy awa ci bopp dama ko laaj ba sonn il a fallu que ma insister mu doog ma wax ni que ni moom ak yaayam la am na nag lu ko metti te yaayam man ba depuis ma wax ak moom dama yaakaaroon ni dina taxaw assister doomam parce que après tout moom rek moo ko mën a jàppale mais deful loolu moom leen dong moo ko intéressé muy awoon na dem di liggéey di fayeeku di ko indil xaalis benn cinquante mille bi awa jël jox ko sam pap tax na wax na ko ci lu nekk te nag bu maak awa yëpp yaay sunu mag kon boo gisee loo xamante ni mën na koo gaañ ëllëg pour man danga ko war a jàppale awa mi wutal ku ko assister parce que soxla na ko. ok ok dégg naa daal c'est vrai que ces temps-ci je pas trop regardant parce que fi lu bari je me déplace trop démb ak tey dama ne ci problème mais je vais essayer de faire des choses t'inquiète kër gi xam nga ni mu demee. yaay awa moom kenn demul mu des. elle est bipolaire xaalis jaral na ko lu nekk lu ne la ko jaral lu ne lu ne euh, awa fi mu jaar yépp moom tey jii dafa waroon woote tànnibéer bi bàjjan woote sant yàlla bi doomam nekkaatee sur les bons rails dem di liggéey di ko andil bu mayee cinquante mille sam papa lan mooy cinquante mille francs war na ko ci jëm a gëtën te aw nekk ci fi mu situation bi mu nekk waruñu ko puusaat ci yenn traumatisme yi parce que xam naa aw te am na benn awa beneen bu nekk ci moom mais de toute façon dinaa ci dox ay jéego je ne pas je vais appeler des gens soit yóbbu ko hôpital wala quelque part ñu nit ñi di waxtaan ak moom parce que bu ma ko seetaanee nii sawa va ça va ça li ma la mën a wax mooy loo ci mënti def ak nu mu gën a gaawee rek nga def ko ci. parce que awa instant bii ñu tool nii dafa perturbé wu. d'accord Khady t'inquiète dinaa ko gën a jege dina waxtaan ak moom d'abord après je vais prendre des dispositions par rapport à ça na t'inquiète pas mais yow surtout jege ko ne la laisse pas avec sa mère c'est une suceuse intérêt rek moo ko tax a jóg jege ko rek yow comme yéenay fanaan mën ngeen di waxtaan à tout moment. d'accord waaw man damay génn dama may affaire. je dois me dégager un peu la tête. non ci la. naa la expliquer.